بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 salaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaa'i wal mursalin sayidina wa moolana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahabatihi wa taabiina lahum bi ihsaan ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami raashidan wa mursidan wa fikrati nawwir wa qalbi arsidan ilayka tubtu tawbatan nasuha waj'al lisaani fi rida fasiha mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi nga xam ni baaxoo ngeen ñoo seetaan ci seen télévision ba Fatou Bichri ñu ngi leen di bi gën a sakkante mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñuy sant yàlla subhanahu wa taala tey ñaan mu julli ci yonent bi alayhi salaatu di yàlla sunu pas-pas ak sunu jaay di di sant bu baax Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul tey ñaanal mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gépp di ci jiital sëriñ Sidi Muxtaar tey ñaan yàgg fi loolu te ànd ak wér ba naal yi nga xam ni naalal na ko lislaam rawatina yoonu sëriñ bi mu àggale ko fu kawe njortam te mu ànd ko ñun mbokk yi nag tey ñu dellusiwaat ci jotaay bu spécial boo xam ni dañ ci dañ koy tuddee édition spéciale mu doon jotaay boo xam ni dañ cee war a waxtaanee lu am solo ko te muy loo xam ne war naa yitteel bépp jullit xam naa bala ma sori sama gan gi nga xam ne am naa ko fi duma leen ko présenté damay bàyyi rek mu nuyoo ak mbokk yi nga xam ni. ñooy seetaan seen télévision Mafaatihul Bichri soxna Jamila tafaddal aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi xaayli fi kitaabihi l aziz fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin waxaala subhaanahu wa taala fa zakir bil qurani man yaxaafu waid wa usalli wa usallimu ala abdillahi wa rasulihi allazi ma taraka baaban yaclamu fihi xayran ilaa dallana alayhi wala tariqan yuaddi ila charri ilaa xasarana minhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bañ sant yàlla jullit ci sangu-sang yi mu di seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaanal yàlla suñuy ñaari waajur yàlla jéggal leen seen i bàkkaar te xaral leen ci àjjana yi gën a kawe ak mbooleem ku ñu fa fekk ak ku leen fa fekk ñi ngi leen di nuyu bu baax yéen ñi nga xam ne yéen seetaan télévision Mafatihul Bichri ci spécial émission bi nga xam ne sëriñ maam Thierno dalal nañu ci ñu ngi leen ci nuyu baax moom it di ko delloo ab nuyoom ak ziyaare ak képp koo xam ne rek yaa ngi teewlu li nga xam ne moom moo di émission bi tey ànd ak ñun saa su nekk ci télévision bi sëñ Mame Thierno. am na jëmilatu ñuy jaajëfalaat saa yu nekk rek mbokk yi nga xam ne ñuy topp seen télévision bu Fatul télévision bi ni ma koy waxee saa yu nekk waa télévision bu Fatul Bichri defuñu lu tax ngeen di topp télévision bi waaye seen bëgg lu baax ak bëgg boo leen bëgg l'islam ak bëgg nga leen bëgg mbirum Serigne Touba moo tax ngeen di topp seen télévision Fadilou Bichri tey nag seen gan yi nga xam ni mm, yéen seen xarit la seen lépp la yéen ñi nga xam ne yéenay safoo télévision Fadilou Bichri ndax saa yu nekk ni ngi bay waaram ci télévision ba Fadilou Bichri di def émission bu am solo boo xam ni eh, ay dañ ciy waxtaan ci dalal ay borom xam ci ay thèmes yu wuute yu am am solo loolu yëpp ngeen di ko safoo ak di ci di di di di ko topp saa yu nekk kon moom xam naa ni amutul lu ñu leen di wax ci moom ndax liggéeyam bu rafet moom soxna Jëmelatu waaye nag xam ngeen ni bis la am boo xam ni moom lay def te bis boobu mën naa wax ni dara gënu koo màgg dara gënu koo rëy ndax mooy alxuraanul karim ku koy taxawalal bis di ko defal bis bis boobu dara gënu koo màgg dara gënu koo rëy mën naa wax ni sax bis boobu ngay def def nga lu neex yàlla def lu neex yonent bi waaye def nga lu neex Serigne Touba. Mhm. bis boobu nag soxna Jamilatu lan moo tax nga taxawal ko. jërëjëf euh, Serigne maam na ci laaj bu am solo boobu nga xam ne laaj nga ñu ko waaye balaa loolu dañuy ndokkeel ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision mu fàttewul Bichri tey ànd ak ñun saa su nekk euh, ci seenug euh, njàmbaar ci seenug bëgg lu baax. ndax euh, mun naa wax ne saa su nekk ñoom ñoo tax ñuy góor góorlu ndax ci ñoom lañuy xool ba xam ndax li ñuy def ndax mu ngi jaar yoon ndax nit ñaa ngi koy jëriñoo euh, kon wax dëgg yàlla amuñu seen fay. sëñ maam noo ci laaj bi nga laaj mu di laaj bu am solo ginnaaw ba nga xamee ne suñuy judd nañ ci ñaari waajur yu tedd yu baax ñu teg ñu ci yoon wi nga xam ne moom dañ ñu war a teg jaar lañ ci yoon wi ñu war a jaarale jàngal ñu alquraanul karim xamal ñu kan mooy borom bi subxanahu wa taala xamal ñu kan mooy yonent bi waaye nag jàngal ñu ngir ñu jëfandikoo suñu diine bañ tollee ci jëfandikoo suñu diine itam suñu xel ñu njëkk a may moom moo di ñu taxaw alquraanul karim te alquraan moo nekk wax yàlla ji nga xam ne moo ko jël teg ko ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko ab lettre boo xam ne képp kuy ab jullit war nga koo mën a jëfandikoo ndax mooy li lay jëriñ ci àdduna mooy li jëriñ ci àllaaxira ndax bu ñu xoolee eh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla di indil alquran daf ko wax ne eh, baada auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insaana min alaqin iqra rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insaana maa lam ya'lam maa lam ya'lam mu nekk loo xam ne maanaam lettre boobu mbooleem kuy julli rek tey wuyoo ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam war nga ko jëfandikoo mu di alquranu karim te borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne su fekkee ne jël nga xale bi yóbbu ko ci daara daaray alquran euh, lim koy njëkk a jàngal mu di bisimillahi te su nekkee ne xale bi wax na baa jéggal nañu ndeyam mu wax seen jéggal nañu baayam so bu waxee miim itam jéggal nañu sëriñ daara ba kon ci alquran la ñu teg ngir ñu jëfandikoo ko waaye ngir ñu jëriñoo ko waaye nag mbooleem ci àdduna bi yëpp ngir nga mën a jëriñu faaw nga jaar ci alquraan karim moo taxoon ñu taxawal bés bi mu di bés boo xam ne daf ma dikkee rek ci ay xalaat ci ay xalaat yoo xam ne war naa mën a taxawal bés bi ngir jëriñoo ci alquraan te suñ maam Thierno daf ma dikkee fu yéemu foo xam ne su ma koy wax sax sama yaram day xaw daw ndax sama yaay dafa dafa dafa génn àdduna ci euh, hôpital principal bu Dakar mu lakkoon lakk gu metti ma ànd ak moom maak moom ak yàlla rek ci taatu garab gi ma taxaw di woote ngir ñu ñëw jàppale ma pour ma jot koor bi ci la ma fa xalaat yi dikkalee kane man war naa mën a taxawal bés boo xam ne concours tari alxuraan lay doon muy am at mu nekk ci njaare ci la xalaat yi commencé dikkal bu mu ñëwee nag ba toog ci laa ci xalaat commencé ko. alxuraan am. ndax ni mu ko waxee léegi alxuraan day adresse ay lettre day xibaar boo xam ni moom la suñu borom bind jullit ñëpp adressé ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam adressé ko mboolem jullit ñi jaarale ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam looloo war a tax nag gannaaw ba bu la ku la mën di bind lettre moo xam lakk bu mu mën a dégg wala làng bu mu mën a dégg su la ko bindee ak noo man di def faw nga jóg ngir jëm ko xam mm-hmm. kon nag jullit bi bu fekkee ne suñu borom da ko bind téere boo xam ni soixante hisib la doon cent quatorze suuraat mhm. six mille six cent soixante six aaya yoo xam ni lii farata ji rek mooy mhm. nga mokkal fatiha minimum mhm. lu mu néew néew néew néew nga mokkal fatiha kon jullit bi daa war a fexe doonte ni mënta tafsir alquran mu mën ci xam lu muy jàng mu mel ne nag dañoo toll ci jamono boo xam ni alquran daa mel dañ ko delloo gannaaw ni ma koy waxee saa yu nekk mën nañ ci nasaraan fukki junni waaye mënuñ ci alxuraan junni dañoo dem nag ba jàpp ni alxuraan amut lum leen mën a jariñ mm-hmm. waaye nasaraan moo doon lim leen mën a jariñ ndax jàpp nañ ni ku amul diplôme mën na laa may alal waaye dañoo waroon a xam ni alal mm-hmm. doonul luy sax liy jariñ fa ëllëg liy jariñ ci bàmmeel liy jariñ ci suñ borom mm-hmm. moom mooy waggar taxawal diine alxuraanul karim loolu la ñu waroon a jiital ci lépp te bu fekkee ni soxna Jamilat dañoo yar ndaw ñëpp ci jàng ñu jàng alxuraan ci ñu xam mu njëkk ci ñoom lu bare bare bare bare li am ci jikko mhm. yu yàq dootul am kon mhm. alxuraan jullit ñi ñoo ko fa ñoo ko war a teg ci kaw mhm. jullit ñi ñoo ko war a dooleel jullit ñi ñoo war a taxaw ñi koy jàng ñoo war a taxaw ñi koy jàngale ñoo war a waggar ñi koy jàngale ñi koy jàngale ndax bu fekkee ne defuñu ko keneen du jóge feneen duñu ko defal kon ñun ñun ñoo ñoo ci war a jiitu kon jàpp naa ni bépp ju bépp jullit amel na ju amel na njukkal ci taxawal bi ngay taxawal loolu. Mhm. ndax ñëpp la waroon ñu def ko yow nga taxaw ginnaaw yonent bi àgg na ci wax ni ki gën ci nit ñi mooy ki xam alxuraan ba noppi di ko xamle. Mhm. jàng ko ba noppi di ko jàngale. Mhm. koo koy ci nit ñi ndax xayrukum man ta'allama alxuraan wa 'allamahu. loolu nag ñooñu kooku nga xam ni bir na ñëpp ni moo gën ci kaw suuf. kooku taxawu ko dara ëpp ko njëriñ. dara gënu koo rëy kon soxna Jamilatou dañoo bëggoon nga ñëw rek ci maanaam. Mm. bis bi. Mm-hmm. at mi ngeen ko taxawal li ci yi ci amoon yépp mm-hmm. ak atum ñaareel mi ak mm-hmm. ren ni ngeen ci fas yéene dem ak ñi ngeen ci àndal saa yu nekk soxna Jami. jërëjëf euh, sëñ maam Thierno bis bi ñu ngi ko tàmbalee taxawal ci atum 2013 muy édition bi nga xam ne moom moom lañ njëkk a taxawal. Euh, bi ñu ko taxawalee itam yàlla daf ñoo may ñu jaarale ko ci benn émission bu ñu doon def ci benn rajo euh, ñu ne émission bi moom mooy def anniversaire daal di ci taxawal concours tari alquran yemale ko ci biir njaaram rek waaye nekkoon na bés boo xam ne bés bu màggoon la ci man bés boo xam ne itam macha allah bés bu nit ñi rafetlu woon la waaye dañoo dese woon a xam li ma bëgg a def moo tax xawoon naa metti lool ci man ndax ba ma jàllalee bés bu njëkk bi. maanaam édition bu njëkk bi bi mu jàllee amoon naa ci ay bor toog ñetti weer yoo xam ne damay liggéey di ko fayee ngir bés booba waaye gisoon naa ci yokkute sama diggante ak borom bi subhaanahu wa taala ndax ay yëg-yëg gu ma ci amoon la waaye ci ñaareelu bés bi avant muy dellu si ci la ma yàlla booleel télévision ma faatihul bichiri ginnaaw ba nga xamee ni itam at mu njëkk mi jàll na ci la ma yàlla dimbale ci kàttanam ak mën-mënam boole ma ak sëñ ma Madiaba mooy ki nga xam ne moo yore télévision Mafatihul Bichri ci loolu itam ci laa fa continuer di def kàddu daara yi ngir mën a jàllale sama message bi nga xam ne maa ngi koy jëmale ci alquranul karim ngir taxawaay bi nga xam ne moom la ci ndaw ñi war a taxaw euh, jàpp bi nga xam ne moom lañ ci war a jàpp ngir ndaw ñi jëfandikoo alquranul karim ci télévision Mafatihul Bichri itam ci ñaareelu at bi ci laa ànd ak ñoom def li nga xam ne moom moo di musaabaxatul quraan ya bi nga xam ne ñu koy taxawal at mu nekk waaye nag euh, télévision Bichri def nañ ci seen loxo bu baax a baax a baax ndax jàpp nañ ci bu baax a baax ba ñaareelu at mi amuma ci benn bor boo xam ne moom lañ ci topp te lépp luñ ci bëggoon a def rek def nañ ko ci. te itam ñaareelu at mi ni mu demee woon moo di konku tari alquran dañ ko defoon jël lu tolloog fanweeri ndongo. biñ jëlee lu tollook fanweeri ndongo itam jongante nañ ci tari alquran mooy ki nga xam ne dafa mokkal kaamil alquran bi ak ki nga xam ne itam dafa mokkal xaaju alquran xaaju kaamil bi moo xam xaaj bi féete ci kaw la wala bi féete ci suuf bi ñu fanweeri ndongo yi jongante itam tànn nañ ca fukki ndongo daal di éliminer vingt yi tànn ci fukki ndongo bàyyi ñaar fukki yi kon fukki ndongo yooyu ñoom ñoo demaat final mu di beneen bés bu mujj ba Euh, fukki ndongo yooyu itam bi ñu finaaloo itam am nañ ku ci jël premier deuxième ba troisième waaye mboolem ndongo boo xam ne rek bokkoon nga ci fanweer yooyu teral nañ la ci bés boobu nga xam ne moom moo di bésu final ba waaye nag bi ñu tollee ci troisième édition bi comme gisoon deuxième bi doole ji mu amoon. ren moo nekk troisième édition bi gisoon nañ deuxième bi dayo bi mu amoon ak fi mu toll woon ñu ne lu baax kenn du ko yamale nañ ko génne def ko région de Diourbel bi yëpp. kon ren dañoo boole suñu ko suñu yéene mooy ñu boole Bambey Diourbel ak Touba waaye nag yàlla def na Bambey mujj ñoo bokk ndax communication ba nekk foofu moom moo des euh, mujj ñoo bokk waaye nag Touba ak Mbacké am nañ ci ndongo yu baree bari yoo xam ne ñëw nañ participer kon la vingt cinq bii jàll moom moo nekkoon euh, éliminatoire yi maanaam premier concours bi nga xam ne ci la ñu tànn ngir soxla ndongo yi jongante ci final bi. Euh, bi ñu demee itam am nañ lu ëpp ñeen fukki ndongo euh, tari nañu waaye génn nañ ci fukki ndongo ak ñett pour ñu dem ci li nga xam ne moom mooy bés bi ñuy waaj mu di le 19 mars incha allah. waaw le 19 mars lay doon incha allah ci Diourbel ca maire yi bu Diourbel. Mhm. incha allahu boo xam ni ñëpp a ngi koy waaj mën naa ni waaye xam naa ni euh, ni nga ko waxee léegi at mu njëkk ma. mu mhm. ñu demee woon ci. noonu daraan mm. yi yaa ngi koy waajal mu doon toll ci fanweeri ndongo ñu mm. tànn fukki yi ilmine ñaar fukki yi waaw daaw mel na ni fanweeri ndongo la woon taren romb na ko ba te war a ëpp lu man ñeent fukki ndongo yoo xam ni ci jongante yooyu la ñuy bokk ñu war a def ñaari jongante la ñuy amal war a dem ci final bi incha allahu taala mu war a doon la 19 mars waaw mu mel ni kon bis bu njëkk ba ñu mu ko waxee mu ngi ko amele woon ci benn rajo boo xam ni yaa ngi ko amele woon ci benn rajo boo xam ni mm-hmm. moo nekk rajo bu nekkoon njaareem mm-hmm. ginnaaw bi ñaareelu année bi suñu boroom dogal boole la ak télévision bu Fatul Bichri booba ak léegi ñu koy ànd ñoom. Mhm. daaw moo amoon lu toll ci ñaar fanweeri ndongo. Mhm. ñu éliminé woon ñaar fukki fukki yi dem final. Mhm. ren it ëpp na lu man ñeent fukki ndongo. budget bis boobu fan la toll. ak nan la bis bi di demee ci concours yi ñu amal avant ak final bi. ak ñan nga ci àndal. jërëjëf euh, Serigne Mame na Euh, budget bi ren mu ngi toll ci kon euh, mu ngi toll ci deux millions douze mille ren moom lañ war a financer ci activité bi nga xam ne moom lañu def mu di concours tari alquran bi waaye nag am na ci ñoo xam ne itam ñu ngi leen di xaar mooy ñi nga xam ne dañoo jug rek ngir yëkkati seen alal def ko ci yoon yàlla ngir ñi nga xam ne dañoo bëgg a jëriñoo alquran bàyyiwuñu kenn ñu ngi xaar ñëpp comme ni ñu ci àndeek télévision Mafatihul Bichri ñu ci jàppale moom it mu di suñu premier sponsor bi nga xam ne suñu premier partenaire bi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, sant nañ ko bu baax a baax a baax am nañ ci moom kontaan ak mbégte ndax jàpp gi nga xam ne mu ngi ci jàpp waxuma sax ci wàllu xaalis waaye nag nit ñi nga xam ne ñu ngi ñuy boole ñoom ñu ciy def seen alal ndax gis nga saa su nekk ñu ngi jàllale publicité bi euh, ñuy am ay appel ñu ñuy woo wax dëgg yàlla di ciy jàpp bu baax a baax te itam jug équipe bi Mafatihul Bichri itam ñoom ñëpp jug kenn ku nekk di liggéey di xool nan nga mën a jaar ba loolu sotti wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax di sant jëwrin bi ndax lépp moom la mu di sëñ ma jama bés bi ndongo yi mu ngi toll ci lu ëpp ñeen fukki ndongo jël nañ leen euh, ñu def jongante ci tari alquran ñi nga xam ne dañoo mokkal kaamil bi dañ leen def ñu jongante à part ñi nga xam ne dañoo mokkal euh, nisfu kaamil bi dañ leen def ñu jongante à part ñi nga xam ne itam ñu ngi toll yaasin ba naasi dañ leen a def ñu joŋante ñoom tamit à part waaye nag ci loolu itam dañ cee tànn fukki nit ak ñett bu ñu leen boolee fukki nit ak ñett la fukki nit ak ñett yooyu ñoom ñooy dem le 19 mars moom moo di final ba final bi itam ni muy demee mooy di dinañ euh, joŋante maanaam ñu mokkal kaamil bi joŋante ñu mokkal xaaj bi joŋante ñu mokkal yaasin banaa si joŋante kon dina am ñetti premier am ñetti deuxième am ñetti troisième waaye képp koo xam ne bokkoon nga ci euh, bis bu njëkk bi mu di la cinq bi incha allah rabbi fas nañ leen fas yéene nañ la neexal ci dix 19 mars boobu euh, waaye itam bu ñu noppee itam ki nga xam ne mooy ëppale ci li mu gañaa moom moo di ki mokkal kaamil alxuraan bi mooy gañaa bi xam ne moom moo ëpp ki mokkal xaaj bi itam jël deuxième gañaa bi ki mokkal yaa euh, yaasin banaas jël troisième bi kon ñetti catégorie yooyu kenn ku nekk nañ ci tànn ñetti nit ñoo xam ne dañ ne ñi ñoo jël raw gàddi gi waaye alquran wax dëgg yàlla ku ci mokkal sax benn ay alquran euh, waa des na la teral kon képp ku fa jaar rek nañ la teral. waaw ñi ma jàppale itam benn ci télévision ma faatihul Bichri jàpp na ci bu baax a baax a baax beneen bi ci des itam mu di borom euh, aynu mu di Cheikh Ahmad Badawi ibnu Serigne Fàllu moom it jàpp na ci bu baax a baax jëmale ko ci wàllu ndox yeeg ndax yooyu yëpp dañ koy soxla ndax bu ñu xoolee budget bi mi ngi toll ci deux millions douze li liñ ci war a dépensé deux millions douze mille la euh, di sant itam sëriñ Muntaxa Mbay borom DM Express moom mi nga xam ne ndeysaan mooy defar euh, décoration yi nga xam ne moo nekk ci jumaa yeeg jàkka yi ci Touba ak dakaar moom jàpp na ci bu baax a baax euh, Bawol Times tamit gis ngeen def def na ay publicité yu bare yoo xam ne ni da ko def di ko publier ci internet bi moom it jàpp na ci bu baax a baax ak mboolem rajo yi dinañ fa teew mboolem euh, télé yi itam incha allahu rabbi fas yéene nañ fa teew kon wax dëgg yàlla ñu ngi xaar ba tey nag sponsor yi ñu ciy jàpp ñu ngi leen di xaar bu baax a baax. bon volonté yi ku ci mel ni kii euh, ajili moom tamit mu ma woowee ba Atlanta jàpp na ci ki nga xam ne itam moom moo di euh, Fatima Gueye moom wax dëgg yàlla la vingt cinq bi jàpp na ci bu baax a baax ndax def ne moom anniversaire am moom moo di la cinq mars. te 25 mars bu sañoon da koy bokk a xale yi nga xam ne ñoo doon tari al alquran anniversaire ñu def anniversaire bi moo taxoon mu ne la 25 moom bésam la ndax bésub juddoom la. le 25 février wala weesu moom nga nekk ca Canada. nee na la 25 bésub juddoom la moo taxoon bëgg cee ànd ak waa alquran féete ko moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla may ko ay at yu baree bari tey ànd njëriñ ak faatima Kébé Sarr. moom mi ngi ci Italie moom di woo nañu barkeelu ci bu baax a baax ak ki nga xam ne mu di Abdourahim Traoré moom it nekk ci États-Unis ak yeneen appel yoo xam ne suñ Thierno Ndiaye waaw yeneen appel yoo xam ne jot nañ leen wax dëgg yàlla ñu ngi leen di xaar di woo ñëpp nag ci bis bi. ku bëgg a jot. ma bëgg jot mën ngaa jaar ci euh, jamilatu jaxate arobase hotmail point fr wala nga jaar ci sama numéro téléphone 77 794 40 30 ñu ngi ci woo ñëpp. di 77 77 794 40 30 mooy sama numéro téléphone ku bëgg a jot mën nga cee jaar. yan kàddu yan kàddu lay tàggatoo ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp lépp loo xam ne itam am nañ ko ci alquraanu karim bi ñu ngi naan yàlla séddali ko mboolem jullit yëpp képp koo xam ne am nga yéene jàpp ci yàlla na yàlla fay sa xol bi yéene koo xam ne itam jàpp nga ci lépp loo ci def yàlla na ko yàlla fulal. mu nekk ay xéewal ak barke tiyaaba yu baree bari yoo xam ne day dooteekuwaat ci yow kon ñi ngi sant télévision mu faatuwul Bichri moom mi nga xam ne ci lañ mën a jaar ba jokkoo ak ñi nga xam ne ay ay nitu yàlla ñi nga xam ne itam dañoo bëgg lu baax ñi nga xam ne dañoo bëgg a teral alxuraan ñi nga xam ne itam dañoo bëgg a taxawu àdduna si ngir e, njaboot gi mën a tegu ci yoonu jub ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñu ngi àndal ci wàllu liggéey bi itam mu di équipe mboolem équipe boo xam ne ànd nañ ci wàllu liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax amuñu seen fay bu ñu bu limee rek dañuy daal di juum waaye daal wax dëgg yàlla sant nañ ñëpp gërëm ñëpp jaajëfal ñëpp te itam di leen wax ne ba tey ñu ngi toog di xaar képp koo xam ne bëgg nga cee barkeelu rek boo jaaree ci sama numéro di nga ma jot incha allah rabbi lépp lu ñu fa def itam te yàlla rek tax lépp lu ñu def ci bis bi te yàlla rek tax yàlla nañ ko yàlla fayal boppam yàlla nañ yàlla fayal boppam lu ñu lu ñàkk itam yàlla nañu am yàlla kon wax dëgg yàlla bés bi dañ koo def te yàlla rek tax séentuwuñ ci dara saa yu ñu noppee ci bés bi itam lépp luñ fa jëlee dañ ko yóbbuwaat ci ndongo daara yi ndax dañ leen fas yéene teral ci bés boobu teral waa alquran te daaw bañ ci noppee ci bés ba lañ ci jëlee woon dañ koo dem euh, jël ay ndongo daara yu toll ci fanweer dugal leen ci néeg góor ut ay infirmier ut ay garab yoo xam ne itam mat na lépp mm-hmm. ñu saytu leen ba ñu wér ñu delloo leen seeni daara kon lépp luñ ci amaat itam ñu ngi amaat ay xalaat yoo xam ne itam fas yéene nañ koo def waaye nag ci daara rek lañ koy def waaye nag ñu ngi sant bu baax Naim Ndiaye ak am du jaw ndax wax dëgg yàlla ñu ngi ci New York waaye liggéey bu rafet la ñuy ñoom ñooy waa yi ñoom ñoo tuddee seen waa kàddu daara ndax wax dëgg yàlla dañuy ut ay matériel du jëm ci ay dàll ay saabu ay eau javel di ko def si conteneur yi ma di ko séddale ndongo daara yi kon ñooñu wax dëgg yàlla amuñu seen fay lu ñu bëggoon ci daara yi ñu ngi ñu ci jàppale bu baax a baax ñu ngi leen di ñaanal yàlla taxawu leen waaye loolu lépp liggéeyu télévision ma faatihul Bichri la ndax moo jàllale message bi bañ mën a jot ci loolu lépp wax dëgg yàlla amuñ seen fay maa ngi sant bu baax a baax itam sama borom kër moom mi nga xam ne yaatal na ma may ma itam mu mën a liggéey ci yoon yàlla mm-hmm. xattalu ma benn wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax a baax amuñu fayam di ñaanal yàlla itam samay ñaari waajur yàlla jéggal leen seen i bàkkaar te leen ci àjjana yi gën a kawe ñoom ñi nga xam ne teg nañ ma ci yoonu jub ba tax tey ma mën a taxawu diinul islam waaye taxaw itam alquraanu karim kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax lépp lu ñu amit yàlla na ci seen wàllu génn ak mboolem jullit ñëpp sëñ maam na yow it sant nañ la bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne am nga ko jëmale ko ci itam ci bis bi ndax boobu ba léegi te mu mel ni ki lenn loo xam rek ci lu baax yaa ngi koy jël jëmale ko ci bis bi ba ci émission bi tey am na leneen lu tënk ndax yaa ngi waaj sa bis bi mu di la 5 waaye terewul da nga ko fa bàyyi ngir taxawu bés bi nga xam ne moom moo di la le 19 mars ngir alquran ji kon lépp luñ ci am yàlla nañ ko bokk ak yéen mu di sëñ Njaga mu di équipe bu télévision Mafatihul Bichri Sénégal yi yëpp mu di waa Diourbel di waa waa Touba fu mu mënti doon ne wax dëgg yàlla sant nañ ñëpp di woo ñëpp nag ci bés bi te di leen wax ne dinañ ko seetaan en direct ci télévision Mafatihul Bichri. jërëjëf jërëjëf mbokk yi bisa ngi boo xam ni ku ci jàpp. jàppale alxuraan ku ci def sa alal def ko ci alxuraanul karim ndax li mu wax léegi dafay lu solo ndax daara ñi fa jaar xam nañ ko ñun ñi nga xam ne jaaroon nañ ci daara lu tar la loo xam ni saa yu nekk da am yu yittewoo yoo xam ni mënaluñ ko seen bopp te leen ko war a defal seen i waajur yóbbuwuñ leen fa ngir ñàkk ñu leen fa ngir tumuranke waaye dañ leen a yóbbu ngir ëllëg ñu mën a doon ñoo xam ni ay royukaay la ñuy doon royukaay ngir nga doon ko dañuy wax ni daan wax ni maanaam àddina boo moytuwut nit ki ñu ëpp boo moytuwut buñ la jëngul ci àdduna boo moytuwut mën na laa jëng jëngub àddina mhm. wala ñu jëng la jëngub ëllëg ay kon jëngu daara du dara lul defar nit ki ba bu ëllëgee mu bañ a def luñ koy jëngee ci àddina wala al yawmal xiyaam ga ñu jëm kon ñu ngi lay sant bu baax ci taxaw gi ngay taxaw alxuraan ni jullit ñëpp nga ko defal wallaahi jullit ñëpp nga ko defal loolu loolu moom ku dib jullit ku ne war naa xam ni ku ko nekkal ci alxuraan moom ndax jàngale alxuraan ak mm-hmm. waggar ko ñëpp la waroon kon ku boo boo ci nekkee ngir di taxawu alxuraan di taxawu ñu koy jàngale loolu ñëpp la amee njukkal ñu la war a delloo di la sant bu baax ci turu Mafatul Bichri mi nga xam ne saa yu nekk moom nga ciy àndal. Mm-hmm. di am mbégte bu baax yëg ci ñëw gi nga fi ñëw ngir bis bi ñor gum la ñor nga ànd ak ñun jotaay bi. Mm-hmm. kon xam naa ni bis baa ngi noonu mbokk yi le 19 mars la incha allahu taala ku bëgg daal defal alxuraan dugal ci sa loxo. ngir boo ko ci defee da nga ko gis te doo ko rëcc ba mukk tey ak ëllëg kon ñu ngi leen def daje dig daje incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bismillahi arrahmani arrahim tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilaalamina nadira الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء